salaamaaleykum daaray xasaayit ak jéegoom ci dëkk bi nee naa ba wax naa ko dëkkub sëriñ bamba bi ab yaa fus du ko bale ku sa ndey liggéeyut doo ŋàbb bale di bale dëkkub sëriñ bamba bi kon yéen yéen jigéen ñi yéen association yi waaw leen kumba waaw leen góor yéen a ngi liggéeyal sëñ bamba ci dëkk bi ñu nag lu ci sunu pas-pas mooy fekk si leen ànd ak yéen bale dëkkub sëñ Tuubaa bi kon kàddu googu moom waxoon naa ko ci annonce bi waaye dama ne woon rek naa ko ubbee ah di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision daaree xasaayit ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw dellusiwaat nan nag ci seen émission yi leen doon baaxoo di defal émission yi mooy lan animation xasaayit ngeen nekk fa ngeen nekk moo xam sa place moo xam sa bureau moo xam sa salle moo xam foo mën a nekk rek nga woote ci daaray xasaayit ñu tegal la clip boo bëgg ànd ko yow bégal la ci ba noppi nag gunge la ci incha allahu rabbi loolu lépp dana am danañ fi invité tamit euh, moo xam ay borom xam-xam waxtaankat yi conférenciers yi ak ñiy jàng xasida ak euh, ñi jiite association yi kenn ku ci nekk su ma yenn yow ba noppi nag dama lay indi fii ci studio daara xasaay fii ma toog nag ci studio bu yànj bii ma toog nag ndeysaan ah ñu fas yéene nag waxtaan Mamor mii di liggéey virginisateur moom it maa ngi koy siyaare bu baax sama xarit la di nuyu tamit taalibay Cheikh Samba Diarra Mbaye yëpp di nuyu taalibay Serigne Sonia ba Mbacke yëpp waaye nag di nuyu nag fii ci mbaar yi taximaan yi taximaan yi maa ngi leen di nuyu sama xaritu bopp yaa ngi noonu toog saan ak ñan ñi nga xam ne si ni ñooy ah, dawal sareet yi nag munu ma leen a munu ma leen a munu leen a bàyyi ndax yóbbu nañ ma fu ne ci àdduna bi yéen dawalkat sareet yi yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaare kon bu ko defee ah euh, Serigne Bassirou Sylla xayra prédiction di suñu directeur moom it di ko jaajëfal ci liggéey bi ak jàppandal gi ak pas-pas bi yéen ji waaye sana di nu jàppale ci deuxième caméraman bi tamit moom it di ko jaajafal bu baax sunu waa ji sunu xarit baa ngi noonu Cheikh mi nga xam ne si ni moo nuy téyel wàllu son bi ba ngeen koy dégg noonu kon Cheikh ñu ngi lay jaare ak njaga ma ñu nekkal fële ci kër gu magga moom tamit aussi ñu ngi koy jaare bu baax baax a baax baax di ñaanal sëriñ am sa mbàkke borom jaalibatu tey keroog ku demul jaalibatu kenn mun laa wax la doomi sëriñ son yi bu mbàkke ja def te jaalibatu lu mu def woote bisu xasida bisu sant sëriñ Touba talibé Sëñ Bamba yi fekk ko fa. ca bis boobee nag nee naa leen ku fa teg sa tànk bay boo nga mën a waat ni teg nga sa tànk ci mbégtam Serigne Touba sëñ Moutakha wax na ko télévision Daara Xasaay tamit ma nga woon ci biir incha allahu bi ci kanam tuuti bu nu gënee jot image yi ba monté ko ba noppi dana ñëw tegal leen ko wan ni leen ni leen tuumi ñu fu ñu liggéey sëñ Bamba fu nekk rek ñu leen ña nga fa kon bu ko defee li may njëkk a def mooy dañ leen di bay benn clip ngeen ngeen seetaan ko Serigne Galas Serigne Fallou Touré Serigne Fallou Touré nag di jànkatu xasaayit nag ndeysaan ngeen xam ko barki dem woote woon na bis bu am solo keroog ñun ñii ñoo fa teewaloon daaree xasaayit ànd ak Basiru si la kon ko defee Serigne Fallou Touré taalibe bi Baye Galas Mbàkkeem sëñ Abdou Fatah mu Serigne Fallou Baye Cheikh Abdoul Karim Mbàkke saa waaja ñu dem bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliima bismillaahi rahmaani rahiim bismil ilaahi ma jub delloo ti jàng fi way te way ki semmal ku dib waykat ci gépp anam bismillaahi ma jub dellooti jàng fi way te way ki semmal ku dib waykat ci gépp anam ku yàlla ñor ak yónneen diglul ci xel sama way koo gis ku mel ne ki may way nii nga wax ko ñu xam koo xam ne duniyaak alal ba wax lu neex sa sëriñ ci yooyu ngay dox te wax nde doo aji gëm kuy gëstukat te ragal buur yàlla xam nga ne tey ku mel ne xaadim rasuul duniyaa bi duutu ko am kuy gëstukat te ragal buur yàlla xam nga ne tey ku mel ne xaadim rasuul duniyaa bi duutu am adduna laa wax dama jëllale waa Sénégal ndax réew mi ay taalibey taalibe rekk a fi am waa réew mi kon bàyyi leen fuñ tudde Seexul ndax ñu ñaani wir fi am tey neex na kum neex nga jug dendale kook sa sëriñ ndax nasaraan yaa ngi doon bay di sukk ka gëm tey neex na kum neex nga jóg dendale kook sa sëriñ ndax nasaraan yaa ngi doon bay faal di sukk ka gëm fan ya kumaandaa di woo sëriñ si ñépp fandar ne leen ku weddi ne maay yàlla ma rëq ndi gëm ña weddi woon yàlla rek ñoo ñibbiwaat ci lu wér ña wax ne yàlla di buur kenn delluwul ca këram dañ leen a rey ba mu des xaadim rasuul mi ne leen qul huwa allahu buur benn rekk a fi am ñu daldi def lu ñu man ngir weddi ko mu bañ ñu àndandoo fës ko yéenee sànki moog lu muy fu nu jëm ah, lislaam jugaat ba ca kaw tey bëgg ci ñëw gi mu ñëw wutkati mboo delloo njukkal Sëriñ Tuubaa ñun ñi ñoo ko filmo ñoo ko réalisateur ñoo ko ànd ak moom defal ko ay clip yu am solo te nii nu ko defalee Serigne Fallou mii tamit noonu lañu ko defalee Serigne Ousmane Diouf Serigne Mamor Thiam ak yeneen jànkati xasida tamit waaye tamit nu foofu tamit noonu la ñuy yokkaat suñuy jego ci biir jànkati xasida yi Serigne Touba yi ndax fii daaray xasida studio daaray xasida studio Serigne Mamor Mbacke mu Serigne Modou Bousso Dieng mu Serigne Fallou waaye di jaajëfal Baye Abdou Ndiaye sunu baay bu baax bi moo ñu woon na ngeen ko tuddee émission xitma kon baay alaaji ab Ndiaye waaw alaaji Abdou Ndiaye jànkatu xasida Tuubaa Madiyaana sama baay baax maa ngi lay siyaare taalibeeb ba Basiru Moor baa ngi noonu di nuyu Baye Moor Mbeng sama baayu bopp bi sëñ Amidou Samb ak Maam Mbay Ñang ak jànkatu xasida yi waaye Ilimaan Touré jaalibatul maraaxi bi Ilimaan maa ngi lay nuyu di la siyaare di la ci barkeb sëriñ am sa saxaret barkeb jaalibatu Ilimaan Touré yàlla na yàlla defal jàmm di nuyu Ibrahima Cubu sama xarit maa ngi lay ziare baax Ibrahima Thioub yóbbanteel ma am nuyoo ca doomi sëñ am Gueye ja di sëñ Moustapha Gueye ak sëñ Cheikh Tedd Gueye ak Ibrahim Daouda jeng Cheikh Thiam sama jarbaat di nuyu nag alaaji am sa tugay kane woon ku ni sàdda neex na ma dootoo soof kon maa ngi koy siyaar bu baax waaye du nuyu sunu sëriñ sunu xarit sunu soppe xam naa ne ci jamono jii mi ngi may seetaan ndeysaan waaye mi ngi dee rek ndax man dama xaw a saf korom ci moom muy sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbacke mu sëriñ Touba mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke borom daaray Kaamil sëriñ Mamoun Mbacke maa ngi lay siyaar baax ba lay sa euh, di la ñaanal ci barkeb sëriñ Touba yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla may la fan wu gudd yàlla may la ngërëmal sëriñ Touba ndax sa baay baax ba moo ne woon gëm ak wóolu ak ragal ak yaakaar sëriñ tubaa rek moom lañ koy def waaye bale si buri siñ maaram loolu yaa nga ca yaa nga woo jànkate xasida yi di leen teral yaa nga woo jànkate alxuraan di leen teral yaa nga woo ñuy waxtaan ci sëriñ yi di leen teral ba ci man mii man géwalub sëriñ bamba bi yaa ngi may woo di ma teral kon bale sibri suñu bàkke maara maa ngi ñaan yàlla gudda soo fan ci barkeb sëriñ touba barkeb euh, sëriñ gaawaan samaam ci barkeb sëriñ touba sëñ gànna mesere maxtaar maa ko wax maa ngi moom ñoo njëkk ànd dem bitim réew ah sëñ Gànna yàlla na yàlla guddal sew fan baram kenn du daam kenn du daam Mbàkke kenn du daam boobu la sëñ Gànna Mesere andi ren ci télévision bu mag boobu nga xam si ne mi ngi nekk ci Dakar di Lamp Fall FM télé sëñ Bamba bi sunu naataango yooyu sëñ Gànna taxaw ni kenn du daam kenn du daam Mbàkke kenn du daam ñëpp àndandoo jóg taxaw naan ko kenn du daam ma ne ko wax nga dëgg de billaahi kenn du daam lam wax la kenn waxul fa mu dem la kenn demul fa mu jaar la kenn jaarul te ba mu nee góo kenn neewul didi ba mu nee wan kenn neewul too ba mu nee benn kenn neewul ñaar ba mu nee asalaamaaleykum kenn neewu fa naan maaleykum salaam bu leen ñu rey sëñ bamba kott képp képp sëñ gànna nee na ku dajul bamba dajoo sëñ bi sëñ bi kon ñaa ngi ko ci siyaare bu baax a baax euh, di leen ñaanal jàmm ci barkeb Seexuna Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul euh, ba tey mbokk yi xam naa tey téléphone bi du ma ko mën a ubbi mais damay ñëw rek euh, wan ni leen ni émission bi tàmbali na incha allahu rabbi képp koo xam si bëgg nga ci ay leeral wala nga bëgg ci foo mën a nekk ak métier moo mën a jaay ñu fekk si la rawatina ñii nekk ci mbaar yi moo xam ñuy wat moo xam ñiy jaay bàyyiwuma kenn ñiy jaay xaal sax bu ma woowoon ma yendoo ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom ma defal leen waxtaan wu baax tegal leen ko daara xasaar ñëpp di ko seetaan ba tey bara baramub sareet bu ci bëgg sax ma yëg sab sareet fii ba gaara sub daaru musi ñuy waxtaan aller retour tamit man taxaw naa man bégal leen moo ma bàyyi fi ma nekk ndax su ngeen di bég damay bég ndax bégal leen rek mooy li ma ñor kon yàlla na nu béglente ci barke Cheikh naa Cheikh Ahmadou Bamba Mor Mbaye gaynde ak waalo bi sama waajaa nga noonu foofu ci quartier Muxlisina nekk foofu ci wetu new yi foofu ñuy wax new yeeg der yi moom it maa ngi koy siyaare kenn la ci Basiru si la sama directeur euh, Mor Mbaye maa ngi lay nuyu di nuyu Birahim euh, loo Jeng sama sëñ bu baax bi Jili Fall jànkatu xasaayit mama ñoom ñëpp rek maa ngi leen di siyaare leen ñaanal yàlla defal leen jàmm kon ba tey ma bëggalaat leen di du seeti nag jànkat bu mag su ma ko waxee ndeysaan sama xale yi xale yi nekk euh, Newe ak Deria ak Madiane ak Jannatul Mahwa ak Umul Xuraa ñoom ñëpp dañuy àndandoo bég ki ma leen di andil ba tey génn gu ma ci sëñ Fallou de Baye Galas Mbacke mooy sëriñam kan mooy baayam sëriñ Moutada mu sëriñ Fallou mu soxna Juma Sëy min tudda Jumaay sëñ Bamba ji doomi Baye Ablaye Diouf de laay bëgg a seeti waa gaaras Daaru Musi yéen laay bëgg a seeti kooku mooy kan xanaa sëriñ Ousmane Diouf borom. boole na ko kuŋ ah, kan nana bé nga baag sëñ Ousmane Diouf kon ñu seeti sëñ Ousmane Diouf bégg leen seeti ay ñu dem sëñ Bamba nee na na maag waa ahlu badar ca tund jeewal dem ca tukki ba ba dellu si ku sopp xaadim rasool ini axolo walaay يميل ولا يميل يا ظلم مصطفى بابا يا سجال عليه يا مطالب لا لا لا غير عليه ku bëgg a tàggoog Bakar jugal taxaw ca kaw yool bu màggal Cheikh Sidi Makhtar Mbacke sunu xalifa bi yàlla na fi yàgg. borom Touba tawfeex yasal jalaale yaa mu taal xayra waale ajib doxal yasal jalaale yaa mu taali yaa mu taali yaa xayra waale ajib doxal Mustafa ba salli wa sallim على المكلف على المكلم على المكلم ودور يا آدم حد رسلنا على الرسول kër tubaa ñoom Nday Fall ñoom Fama ñoom euh, ñoom ñëpp rek maa ngi leen di siyaare di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm jaraaf Ndiaye gaa yëpp rek ak Serigne Diop. sëñ Diop ministre maa ngi lay nuyu baax Mbaye Gassama ca marché Maam Jaara ak euh, Zayar ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare leen ñaanal guddi gi fan ak wér gi yaram yéen waa marché Maam Jaara yéen ñëpp maa ngi leen nuyu di ko teg ci loxo Balla mi nga xam ne si ni moom moo leen jàppale ba ngeen nekk foofu kon Balla àll resoomaan jàmbaari sëriñ son yi bu nekk foofu ci première garage moom tamit nee na mi ngi nuyu waa marché maam jaare yëpp yéen xaritam yi yéen soppeem yi di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal yàlla na ànd bi yàgg di nuyu tamit waa marché maam jaara euh, sama mbokki siin waaye nekk foofu waa daaray Cheikh Abdoulahan Mbacke université bi ak ñi fiy jànge ñoom ñëpp sama xaritu bopp yi maa ngi leen ñaanal yàlla defal leen jàmm kon Mor Mbaye TV Gaynde Waalo waxoon naa ko soxna Fatou Anta Mbacke waaye nag di nuyu soxna euh, Fatou Mbacke soxna maam Faati moom Cheikh Sidi Moukhtar soxna maam Faati moom Cheikh Sidi Moukhtar ba si buri suñu bàkkeek maanaam te nag ñoo bokkoon nekk ci màggalu gi ñu doon defal soxna mati lay soxna may sa mag ju baax ji doon ko taxawal foofu ci guy mbind maa ngi leen di ziare bu baax di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ci darajey ku tedd gi Cheikh Ahmad Bamba kon ni muy def mooy dañuy seeti doomu baay Axma Gueye ak yaa Ndey Jóob astafurlaa ajaratu yaa Ndey yóbbu na ko Màkka may seeti école xale yi yaa leen jàngal waaye yow mag ñee jàngal ki may a seeti ba muy téye micro di ko jàng booba gaa yu bari ay xale lanu tey nag gaa yi màgg nan waaye ba tey tey la gën a takk laxasaayam ci xasiday sëriñ Bamba yi kooko moo di kan taalibeeb sëriñ Mbàkke Soxna Lo gaynde borom teyif bàyyi sëriñ Moustapha Ndiagne sëñ sëriñ Abo bàyyi sëriñ Xaadim Mbàkke waaye bàyyi Serigne Fallou Mbacke président conseil régional ak kan bàyyi soxna maam ami ak soxna Daba ki ni seeti mooy Serigne Khadim Gueye bu Daaru Xuddoos taalibe Serigne Mbacke soxloo borom tey fag bàyyi laa seex magi den ñu ñun ñëpp ñu ànd ak daaree xasaayit xayda production matum borom jaam la yaakaari jaam ñi yaakaari jaam ñi jaam ñi bamba yaa bi mun dee ba gi Cheikh Massamba mi ko jëy si bamba yaa bi mun dee ba gi Cheikh Massamba mi ko jëy si bamba yaa bi mun dee سن مدر يا أمين لا مجي شيخ مع سامب أحمد لا أنت Cheikh Ahmadou Ahmadou Ahmadou Ahmadou Khadim la am yaakaari jaam ñi yaakaari jaam ñi jaam ñi Bamba yaa demoon jee sa Bamba yaa jadi xëy di ko ba far

خير القديم في ديوان waaw jërëjëf yaakaar naa kon sëñ Xaadim baa ngi noonu incha allah son yi sax dana gën a leer ak image yi euh, loolu lépp dina leen ci bégal ah, di jaajëfalit bu baax waa Daaru Xuddoos waa Madiyaana waa Mbaariya waa teenu Maam Cheikh waa Daaru Minam Jannatul Mahwa waa Umul Xura waa Mbàkke Bawal waa Jurbel waa Njaareem waa Bambey waa Xombal yéen ñëpp ñu ngi leen siyaare waa daaru musti waa mesara ñu ngi leen siyaare daaray sëriñ mu sëriñ asadiey ñëpp ñu ngi leen di siyaare waa Touba Belel waa Daru Wahab dëkkub soxna may Munatu Mbàkke bintu Xaadim Rasul ñu ngi leen di siyaare bu baax waaye di nuyu tamit waa Madiana 4 Madiana 2 ba 5 ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare waa Buxatul Mubaaraka waa Umul Qura waa ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare ñaanal yàlla defal leen jàmm ba ci Daaru Xuddoos gi ma dëkkee quartier Muxlisina di ñaanal Baay Daam Sey sunu baay baax ba yàlla na ko yàlla wanaleeg Sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde ma di jaajëfal di ñaanal sëriñ Cheikh Bintu mu suñ Modou Xabaan mu suñ ma Ndumbe sëriñ seex Bintu noo ngi ñaan yàlla guddal fanam yàggal taxawaayam kilifa gu nekk dëkkal la lu nu xewle moo ci jëkk moo ci mujj ak ñaanam ak dooleem ak xelam ak xalaatam xale yi koñ bépp ci këram lañ jànge alxuraanul karim kon sëñ Cheikh Bintu yàlla yàlla guddal fanam ci barkeb Serigne Touba maa ngi nuyu nag sama soppe yi ku mel ni soxna Ayda Gueye président soppe yi Sadda Ñang ak soxna Mame Ben Diop moom it ñi koy jaare soxna Ami Kole Ñang sama rakk jaa ngi noonu toog euh, di ko ñaanal yàlla dafa la jàmm ak mboolem soppe yi Sadda Ñang yi woon fan sa club ma ne leen nan ko def rek euh, euh, xale yi Bamba yi ñu liggéeyal Serigne Touba ndax man lu nit di gis man ba di ko sopp rek wala wala mu di ma bëgg rek ku tedd ki la cheikh an cheikhuna cheikh ahmadou bamba ndax man damay géwal boo xam si man suñ tubaa rek kon ñi nga xam si ni ñooy soppay sàdda ña ngi ñoom ñëpp maa ngi leen ñaanal di leen yàlla ñaanal yàlla defal leen fan wu gudd ak wér gi yaram di nuyu ajaratu Sofi Ndiaye bàyyi fallu suñu cheikh gaynde fano borom naas kon bu ko defee ba tey dama leen daal di bégal fan laa jëm tey nag maa ngi jëm ba ndakaaro naas tuun yaa ngi mbéy géey maa ngi ñëw ci ndakaaro kan la ñu seeti xanaa ki nga xam ne si ni moo ni sëriñ Bamba yaay génn waay kenn ku nekk di waay waaylu waaye bi mu ne yaay génn góor xam na ni kooka rek mooy génn góor ki moon Gabon mooy génn góor ki demoon Mayombe mooy génn góor ki demoon Dawme mooy génn góor ki julli ci biir géej gi bàyyi Serigne Saliou Serigne maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp maami Serigne am sa borom jaalibatu mooy génn góor kon mi seeti kan alaaj seex Cheikh Jom Baye Jam Bamba taalibe Serigne Touba Khadim Rasoul taalibe Cheikh Issa Dieng. Amadou Yàlla maa jigéen Njaay mën dumbe maa jigéen Njaay doomi Baye Abdou Mbaye ak soxna Xaar Seck alaaj Seex Jom Mbaye kennal Serigne Touba ñu ne genn waay gars yi du bokk bokk lu mu yaay génn góor génn góor jàkkee géej sallallahu alayhi wa sallam dégg nga xam nga fi <laughs> bas bas bas bas andi laanal ma ko Seex ah, ah, day dugg si ma ne ko yaa naan genn waay gars yi du bokk bokklu waaye ba nga génn góor mooy bokk bokk lu mu làmb fi xaalis bu bari daan ma jox noonu ndeysaan daal di ñëw toog toog daal di jàng waaye bi ma joxee xaalis bi damaa tiit ba ne ko sallallahu wa sallam déglu leen ko. waaye day du bokk bokk lu mu ne yaay génn góor génn góor jàkkee géej si mi gën léegi kon alaaj Cheikh Diom Baye nga noonu ñu ko defee ñun ñëpp ñu bokk déglu Jaam Bamba taalibeb Serigne Touba Xaadimal Moustapha mi nga xam na si ni ah ku mel ni Serigne Mama Ndiaye mu ndeysaan bu yëkkatee rek sa xel mépp dem ci euh, Serigne euh, alaaj Cheikh Diom Baye waaye yëpp rek waaye nag kenn du sunu mag ju baax ji nag sëñ Ousmane Diouf barke borom too Mbakke man Ousmane laa gëm waaja benn kàkk moo ma ko wax daal ne mais saa yi fu juuf di jànge tey ma ne ah xanaa topp mbedd yi rek di laajte fu juuf di jànge <laughs> si sopp Sëriñ Tuuba loxo ca kaw nu màggal Ahmadu Bamba wili na la ja la la man ta ala amoo morom Cheikh Bamba ni man ta بزمان على جلال على جمال إيمان تعالى بزمان أمو مرم شيخ بامبا إيمان تعالى ربي زمان محمد أكرم على عمي عيلة رجل حسن النزاع يا لا محمد نيم الزمان ترينا نيمنا كوفرنا ليرو أزار محمد كاذي القرار ما الفرار مجبرار إلا نزار Love. محمد بعد يوري ما الغورة بعد رورة رجل لو امتداء بعد نجايا إن سمائي قبل بسبع نسوا بالمزار مسوارد سمينا على الجميع kon nag mbokk yi mel na ni nag li ñu cërale woon ci waxtu wi nag ndeysaan daal dinay jot kon fii nag la ne daal di leme suñuy kaaka nag bàyyi leen ak programme u daaree xasaayit ba tey ngeen di ko konne di ko seetaan waaye baneen ay baneen yoon tamit su may def émission damay def télé damay def numéro téléphone bi ci suuf nga xam ni kenn ku ci nekk fa ngay toog da nga fay mën a toog mën a jot Sada Niang fii ci studio daaree xasaayit studio bi ñu tuddee sëriñ Mamour Mbàkkeem sëñ Mourou Moustapha Falilou mu sëriñ Modou Bousso Dieng kon ñu ngi sant Ablaye Niang sama taawu baay maa ngi koy sant di la ñaanal yàlla defal la jàmm may la fan lu gudd ak wér-gu-yaram di nuyu Modou Niang Fallou Talla sama rakk yëpp maa leen ziare di nuyu sama soxna yi nekk ca kër ga ak sama soxna yi mag yi ak sama soxna yi rakk yi waaye di beral nag sama ñaari soxna yi bopp yi nga xam si nag moom ah maa leen préféré nag ñoom ñoom pour man la maa leen ñaana yàlla dafa leen jàmm ci darajey Sëñ Tuubaa Mbàkke di ziare waa Madiyaana waa kër Basiiru si la xayra prédiction mati yaag awa nee naa leen alxames yéen laay baleel alxemes dinaa ñëw seen koñ dinaa ñëw jël leen ñu ànd bale dëkkub Serigne tubaab yi même bu ngeen mënta ñëw ci studio bi tamit ma def ak yéen foofu waxtaan tegal leen ko ngeen di ko seetaan ngir di talal loxo seen mbokk yi nga xam si yëpp ñu ngi ñu ngi bale amul benn problème dinaa ñëw ànd ak équipe bu daaree xasaayit gépp ñëw ñu bale alxames incha allahu rabbi na ngeen waaj 4 heures ñu fekk ñun ñëpp ñu àndandoo taxaw waaye di nuyu tamit sunu safoor bi nga xam ne si ni mooy safooru daaree xasaayit oto baa ngi ci bunt bi. bu ko defee mën ngeen di continuer di seetaan programme télévision daara xasaayit xayra production di ba jaajëfal Basiirou la ci jàppandal gi Euh, moom it di ko ñaana yàlla defal ko jàmm ci barkeb Serigne tubaa ndax ku neex àndal la ndax ay at du ay weer du ay bés du ay semaine te ñu ngi ànd te boobaak léegi ndeysaan mësta soppeeku mësta sensé waaye sàdda mi ngeen ko xamoon démb ak bërki démb tamit mooy sàdda mi kon ñu ngi ñaanal euh, bas yàlla na ko yàlla defal jàmm bàyyi ko njabootam ci darajey Serigne tubaa euh, bis bi ñu doon fàttaliku Cheikh Saliou Mbacké nag depuis démb ñu ngi ciy fasaale mbooleem way daw waaye mënumaa toog ci daaree xasaayit ba génn tudd ma xaadim nekkoon fii ci kër gi doon jàmbaar bu ñuy def émission day toog di jàpp ci liggéey bi du taxaw di jëndi ndox di jëndi kafe len lu ci nekk mu di ko def kon ñi ngi ñaan ci barkeb turandoom fi mu tëdd yàlla na ko dàqal fii mu nekkoon euh, ci barkeb Serigne Bassirou loolu laa ne woon dinaa ko lancé dina indi tamit émission boo xam si spécial dañ koy defal Abdoulaye Seye Gueye su boobaa danay def micro trottoir kenn ku ci nekk loo xam ci Abdou Lahad Seye Gueye danañ dem ba ci kilifa yi kenn ku ci nekk ak ñi seqoon ak Abdou Lahad Seye Gueye incha allahu rabi dana dana leen ko indil ndax loolu rek moo ñu bàyyi fi ñu nekk kon ñu ngi leen jox dig daje baneen yoon ak yeneen émission ak yeneen i jataay waaye alxemes kër ñoom awa incha allahu bi borom kër gi nag ñoom laay seeti ndax ñooñu nag. ñooy soxna si borom kër gi ñu nekk di daare xasaay di nuyu tamit kër gi nga xam si ni fi la nekk soxna yi ñoom ñëpp badaa ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare leen ñaan yàlla defal leen jàmm yàlla na nu am kendalug jàmm ak salaam ci barkeb Serigne Touba jërëjëfa borom Touba jërëjëfa borom Touba jërëjëfati Serigne Touba salaam ñoo ngi lay nuyu bu baax ci deuxième écran bi ak leeration bi ak qualité bi ak taxawaay bi lépp rafet na yàlla na yàlla def jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf. Cheikh Saliou Mbacke yal na ko yàlla doon leer.